waa Sénégal plus précisément waa Mbour tey nag waa seen info 8 TV ñoo dellu waat fii tey ci centre commercial seet ki nga xamante ni mooy Caféchène ñu gën koo xam si Mamor pour am ak moom benn waxtaan ci wàllu style. comme niñ leen ko waxee woon ñu ngi fii ci Caféchène ñu gën koo xam si Mamor pour am ak moom benn waxtaan Mamor ñu ngi lay nuyu ñu bàyyi la nga nuyu waa Sénégal. waaye ñu ngi lay fay soxna Ndeye Wuli di nuyu Sénégal rawatina waa centre commercial Baye moodo ñuy nekk fii ci Mbour jàkkaarloog pharmacie Le Soleil ñun nag ñu ngi nuyu ñëpp daal di ziar ñëpp di nuyu uh, àdduna rawatina waa Mbour gi nga xam ne fi lañ nekk di fi daan suñ doole waaw di kontaan ci maanaam émission bi di leen ci jaajëfal bu baax di wax ne en tout cas daal ñun dañoo nekk ñoo xam ne ñu ngi ji yëngatu ci wàllum ko quoi ñu gën koo xam ci yëre jigéen muy ay rob ak jean ak body léegi ngir taaral xale yi mbuur rek waaw di jaajëfal ñëpp kontaan ci yéen bu baax. ñoo la gën a kontaan ñun nag bëggoon nañoo xam kan mooy Mame Mor ak Mame Mor lan moo ko dugal ci métier bi. Mame Mor nag mu ngi nekk doomu saalum Saloum doo dëkk bu ñu naan Ngab ci commune de Malem Odor département de madina Jàng yaroo fu ñuy wax Mbirkilaan commune de Mbirkilaan Mbour nag maa ngi fi ñëw 2009. pour daan si fi doole rek bi may 2009 bi ma fii ñëw année boobu ci laa bàyyi jàng man nag arabe laa jàng parce que français li ma ci laal tuuti la quoi waaw bi ma ñëwee Mbour nag nekk naa fi doon yëngu ci yeneen métier daal mais 2012 si laa dugg ci njaayum dee la mu yëre jigéen ñi nekkoon fee ci mbedd ma nag di fa jaay yëre ñu sonoon ñu fa lool ba mujj dagal ñu fi ay place ñu ñëw toog fi di taaba taaba ba yàlla def tey lii nga xam ne nii ci la ñuy suturloo quoi mu nekk loo xam ne nii maanaam mën nañu wax ne parcours bu lii la daal mais xaw na difficile daal avant ñu yegg si fii daal te ñu ngi ñaan yàlla dépassé fii yëpp dem feneen fu gën a njort fii waaw léegi daal ndeela mi moom li ñu si dugal mooy dafa nekkoon dañuy fekk suñ grand frère mu ci daan dooleem ñu ñëw topp si ginnaawam loolu daal mooy ñu si dugal. mais bëggoon nañoo xam naka nga gisee euh, jaayu yére léegi ak bu démb bu njëkkoon ni nga ko doon dundee ak actuellement nii jaay yére bi ni mu mel. noo non jaayere démb moom moo gën a neex jaayere tey parce que bu njëkk man 2010 bu ma ciy dugg comme bagage yi bëriwutoon fii Mbour bëriwutoon fii quoi parce que dañ daan ñëw une semaine bi mën nga fi dem trois fois Dakar mais instant bi jamono bii ñu toll da ngay am trois mois wala deux mois doo mën a dem Dakar boo soxlaa bagage da ngay dugal xaalis ñu indil la ko te moment boobu ñu toll parce que marchand ambulant yi comme ni ñu daan taxawee ci mbedd mi nga xam ne foo toll gis ku yor sagar taxaw ci mbedd mi boobu instant boobu amul. boobu mënoon nañu wax ne ñaari milliers ñoo fi doon jaay yére muy centre commercial bi ak ci xay gi ñoo fi doon jaay yére jigéen yére loo jand boo ñëwee balaa ngoon nga jaay ko jëndaal leneen mais instant bi nag moom njaay mi dafa yàqu ba nga xam ne nii xale bu jot day téye sagar ñëw taxaw ci mbedd boo ko fayee fukk boo ko tegalee juróom mu jaay kon xam nga ne démb mëntu yem ak tey noonu la demee quoi. kon daal buñ la déggee jaay yére actuellement métti na métti boo xam ne pour nga génn ci sax du yomb. non métti na métti na trop sax. mais nit ñi nag dañoo foog ne maanaam liggéey noobul la te fekk du liggéey noobul dafa nekk liggéey bu difficile quoi mais des nañ koo xam tant que nekkoo ci rek di yëg coono bi ñu ciy daj parce que façon client bu ne ngay dajek ci biir des fois nit dana ñëw tasaare sa bagage yi ne na grand lii rek nga yor ci bagage nga ne ko ah lii la ma yàlla sedd mu jóg dem yoonam la nga ko doon won moom lay jënd feneen ñëw ne la grand jënd naa nga ne ko ma xool mu ne li ma ma doon wan laa jënd mais ku nekk ak sa wasak ko demal te yàlla tax la fa demee daal si wax nga dëgg parce que gis nañ ne xale jigéen ñi dañuy ñëw si biir pere yi làmb yëre yi natt te duñu jënd mais est-ce que dina lay arrivé parfois xale bu jigéen ñëw ne la lii laa andi léegi danga may jox ba beneen yoon ma ñëw complété dootoo ko gis truc yooyu est-ce yaa ngi koy dund. bëri na ci bëri na ci bëri na ci lool sax parce que man des fois ma jaay xale bu jigéen mu ñëw ne ma grand kat calculé lii laa yoon ma ne ko comme cliente nga te fi ngay ñëw garaawul loolu du ñu boole ma jox ko mu dem mais doo ko gisaat. mën na ñëw si centre bi mais day teggi ngir benn ay 2000 francs yu mu la yoreel wala benn 3000 bu mu la yoreel te pourtant loolu bu doon ñëw di toogaat fii nii xaalis boobu mën na koo bañ a laaj sax mais na génnewaat ci poosam jënd quoi mais bor bi bor du ci teguwaat pili nag nga gis fi ñoo xam ne nii moom buñ la leboon duñ ko tëddaale duñ ko nelawaale heure bu ñu amee dañuy ñëw fay si ko mais ni ñi ñoo yemul quoi. kon nag ñoo ko déggandoo nit ki buy liggéey boo ko lebee amal ngoru fay ngor euh, ngoru lebal la amal ngoru fay ko mais bëggoon nañoo xam euh, fii naka la concurrence bi demee est-ce que dinañu faral di nangu seen client yi parce que gis nañ fii alignement bi yëpp ay pre ñoo fi nekk naka ngay dundee loolu. non loolu moom ci boo gëmee sa bopp moom xam sa bagage yi ngay jënd yow doo concurrence ak kenn yàllaa fi nekk nag mais dafa am loo xam ne nii boo ko boo ko gëmee yow yow miy liggéey xam matériel bi nga yor yow doo concurrence ak kenn client yi ci boppam ñoom ñoo la man nit day ñëw ne ma diw mooy sama client mais Mame Mor li ngay jaay dafa rafet jox ma sa numéro ma jox la samay xarit ma boole la ak samay xarit bëri na fi lool te gëm naa ne loolu noonu ci biir maanaam bagage yi lay doon quoi waaw des fois nit doxantu ba sa place wala nit toog fee ne xam nga milieu bi dafa nekk loo xam ne dafa jaxasoo poskat yaa ngi fii jaaykati daal yaa ngi fii jaaykati yére yaa ngi fii dañuy romb ku nekk day romb dafa nekk milieu boo xam ne nii maanaam lu fi am daal li nga yor bu fekkee yow yor nga qualité bagage yor bagage yu baax bagage yu nekk en top yow yow yow bagage yooyu ñooy jaay mais yow nekkul yow yaa koy kii quoi bagage yooyu ñooy jaay boppam. am na solo mais gis nañ ne fii ay yëre jigéen rek lañ fi gis gis nañ fi nag façon yëre jigéen bu nekk mais bëggoon nañoo xam ndax da nga jaay yëre góor ak yëre xale parce que ñoom tamit ci solo bi lañ bokk. yëre góor man damay am client yoo xam ne ay yëre góor lañ soxla ñu soxlaa yëre góor dañuy naan duñ dem ci jaay parce que wóolu nañ ma ci bagage boobu quoi dañuy ñëw toog ne ma dama indil ma yëree goor jaay ma ko parce que boo ma indilee doo ma jaay cere ma dem indi leen bagage jaay leen ko qualité laa leen di indil nag waaw loolu moo fi am. am na solo mais Mamor ñu dugg tuuti si débat bi nga xamante ti jafe-jafe yi nga xamante ni jeunes yi léegi ñu ngi koy dund nga xam ne actuellement nii mbëkk mi sonal na nit ñi feebar bi si géej gi kenn xamatul affaire bi lan la doon. xale yi marché bi boo duggee doo gis benn góor presque mën naa ne ñëpp dem nañ tey boo doon jox conseil xale yi góor yi lan nga leen di conseiller. non actuellement jamono bi moo leen doon conseil moom ci ñu toog gëm seen bopp laa leen di jox quoi parce que man li ma fekk fii di ma proposé ma problème mu gaal bëri na. te du sama yitte bëgguma ko dama leen toog di ba leen di wax ne leen billet avion sax bu ma ko amoon du dem parce que dama fi bàyyi loo xam ne nii mënumaa toog deux ans yoo xam ne nii gisuma leen. tooguma ak ñoom sequma ak ñoom dara muntu nekk quoi mais ku nekk ak sa gëm-gëm ak sa bëgg-bëgg dafa am ñoo xam ne ni tey li leen yóbbu Espagne ak li leen dugal ci gaal yi moom mooy maanaam coono bi ñuy dund fii ak maanaam xat-xat bi ñuy dund fii Sénégal nga xam ne ni dem nekk prisonnier Séné kii moo leen gën a ñun li am liberté fii Sénégal waaw parce que affaire dafa nekk loo xam ni nii tey da nga gis koo xam ne nii da doon daan dooleem yor plus de un million cinq cent nekk si mbedd mi di daan dooleem ñu yëkkati la yëkkati wàll nga mille lan ngay boo gisee gaal guy dem boo ko mënee jox jébbal sa cent millions da nga léegi dañuy nañu wax suñu dëgg te yàlla tax rek dañ leen dese jàppale ci benn côté quoi bëgg nañoo daan doole mais dañ leen dese jàppale bu ñu amoon ñoo xam ne nag nekk nañ seen pegg di leen jàppale nii dañuy am sa mbokk moo xam ne yor na sax loo xam ne nii moom yor na loo xam ne nii mën na la si jàppale mais dalay toog di la seetaan naa ko bàyyi mu souffrir léegi nag balaa souffrir bay rey boppam nag day obligé moom dem ci gaal yi def barça wala barsax noonu moo fi nekk rek da fekk àdduna moom xam nga rek ñaari moo fi nekk rek am wala ñàkk yàllaa bind lépp kon nag suñu yàlla tegee yenn yi dañ koy nangu mais jeunes yi loolu moom dañ ko du sóoraale bu la yàlla tegee benn affaire dañ koy nangu xam ne lii yàllaa la ko teg mbindeef tegul la ko man gëw ma diw moo ma teg lii gëw ma moo ma teg laa man damay gëm ne lu ma dal muy ci wàllu wér-gu-yaram muy ci am-am mu ci wàllu ñaag damay gëm ne yàlla moo ma ko teg moo tax. mais yow gisoo ah nga tog fii ak sa 100000 boobu Euh, taaba taaba ba yàlla andi leneen gënul nga dugg ci gaal gi perte sa cent mille perte sa bakkan say mbokk di souffrir. déggoo li ma la wax dama ne la nit da doon yor un million yor ko di dem ci taaba taaba ba dese cent mille franc boobu loolu tey muy obligé mu dem dugg ci gaal parce que day wax ne lii su ma ko yoree cent mille yi des yi bu ma ci toogaatoo fii Sénégal damay dem ba dootuma dese dërëm damay dem dugg ci gaal yi lu ma am jël bu ma dee sax ci yoon yi baax na parce que ñu bëri bu ñu ciy dugg loolu ñuy wax maa ngi dem sama àgg ak sama ñàkk àgg ci loxo yàlla nekk lu ci am baax na. noonu la ñuy dundee waaw. en tout cas doy na waar mais man moom bu ma leen doon conseil li ma leen dox mooy ngeen toog fii parce que nga dugg dee wala nga dem foofu foofu gën a metti je préfère nga toog fii di gis sa ndey ak sa baay mais ñu dellu si waat ci wàllum style gis nañ fi euh, façon yére bu nekk gis nañ fi façon body bu nekk donc yow naka ngay euh, dundee ak xale jigéen ñi ak style bi ñu jël actuellement nii ak jaayu yére beeg yooyu. non man li may dundee ak ñoom rek mooy tey des fois tey xam nga benn nekk loo xam ne ni jigéen ñi. ku ci sol wut rek day mel ni nekkoo ci dara waaw ñi may jaay nii bari na ñoo xam ne maa ngi leen di jaay ñoo xam ne ni ñoom seen bopp sax dañuy ñëw di jël ci man bagage dem di jaay wala maam moo dugalal ma lii moo wan ko samay client bu ma amee client te ñëw jaay leen parce que dañoo gëm ne lii moo fi nekk quoi te gëm nañ ñi itam jigéen taaru jigéen moom ci solu ci ji benn jigéen ñaawul boo defaroo rek rafet di sol lu baax di sol lu service di defar sa bopp moo tax nag instant bi nii gars yi jàpp nañ parce que fii loolu la ñuy wax ku jaayu ndee la jaayoo daal parce que solu jigéen doo ngay sol yëre loolu la ñuy wax waaw parce que instant bi nag loolu moo fi nekk waaw defal sa bopp loolu moo fi nekk daal. actuellement daal bu ma la déggee mooy que elles sont toutes belles ku defaru rafet donc jigéen ñi dee leen defaru mais gis naa ni bu njëkkoon xale jigéen ñi niñ daan solo di solu seen jumbax yi di feeñ wala bu ñu du ñu ñemee sëgg ndax yëre yi ñuy sol gisuma ko fii ci sa place gis naa ne tey am nga ay yére yoo xamante ni boo ko solee di nga mën a sax ak sa parent te loolu da ciy am solo ak style boo mënti jël day am solo boo soloo ba pare ah nga mën a romb sa parent te du sëgg mu mën la xool nga mën a dugg fu nekk mais gis nañ fi ay jean yoo xamante ni macha allah am na classe gis nañ fi tamit ay bët yoo xamante ni aussi boo ko solee di nga mën a dem fu nekk ndax yow yaay tànn loolu wala xale jigéen ñoo la koy proposé. non jamono mooy dem ba def benn changement quoi jamono bu njëkk jumbax awa dafa xewoon. ñu wax taille haute dafa xewoon taille basse dafa xewoon léegi nag mënatoo jënd jean sant taille haute di nga ko sol sa jumbax du feeñ sa ginnaaw du feeñ bu la neexee sëgg for sa portable bu la neexee toog ak sa parent lenn kay mooy différence bi maanaam xanaa bët yu gàtt yi yu sas nga xam ne ne amatoon jamono waaw luñ changé rek defaat beneen contraire waaw mais instant boobu tolloon na moment boo xam ne ay jamono deux 2011 2012 yooyu temps yi jamono taille haute moo jamono taille moo amoon quoi. nga xam ne ak sipp yu gàtt nga xam ne mënoo ko sol sëgg wala nga sol ko di toog ak say parents wala non mais léegi moment bi ñu toll jiin yi nga xam ne ni moom la ñu sol jiin boo ci yëkkati taay ut lay doon dina dem ba nëbb sa jumbox dina dem ba nëbb sa ginnaaw léegi nag jamono yi jamono bu ñëw daal ak lañ koy dundee quoi. mais yow en tant que jaaykatu yére bi nga yaakaar ne rafetul comme jigéen ñëw bëgg lu gën a sexy nga naxtaan ko waxtaan ak moom ba génne ko ci loolu dugal ko ci loo xamante ne bu ko solee tey dina rafet ah ñëpp dinañ ko apprécier te ay cëram du feeñ. c'est loolu nag yombul jigéen day ñëw fii bëgg benn nga proposé ko mu ne la waxu jaay kan nga may wax moo tax yombul quoi jigéen dina ñëw bëgg benn affaire moo xaw a si nga ne ko soxna si lii de bu ma sañoon nga jël ko lii de rafet na ci yow mu ne la sëñ bi damay jënd ne ko mu ne bàyyil ma xool sama soie kon xam nga loolu des nag am ñi ñoo xam ne bu ñu ñëwee moom boo leen proposé bagage dañ ko jël wala ñu ne la grand xoolal ma lu rafet nga jaay ma ko mais am na ñu ñoo xam ne ñu compliqué ñoo xam ne ni bu ñu waxee nga wax loolu rek dañ naan waxu jaay kan nga may wax da a wax ba jaay ma quoi. daal su ma la déggee xale yu jigéen ñi nekkul ne ci jaaykat bi la mais si ñoom la parce que parfois dañ leen di balaame ah, ñu naan euh, ñi nga xam ne dañuy jaay yére bu fekkoon indi wuñ fi yenn tenue yi kon xale yi jigéen ñi duñu ko sol. waaw loolu loolu am na loolu dafa am quoi parce que lu bëri nag ci ñoom la quoi. lu bëree bëri ci ñoom la parce que jigéen li mu jël rek la xam tey bu ñëwoon tey tànn bagage sam nga teg ko am lenn loo ko fa jéem a changeloo rek am na nit ñoo xam ne mën nañoo bàyyi bagage booba dem seen bi quoi moo tax su ñëwee yow miy jaay da ngay taxaw place su jaay kër ñoom ñuy jënd ñuy toog place jaay kër loolu daal moo fi nekk instant bi lu ne nag nga fiy dund quoi. d'accord mais gis nañ ne yemoo ci jaay yére dong gis nañ fi ay dàll yu tendance xool dàll bi. gis nañ fi ay dàll yu rafet yoo xamante ne franchement boo ko solee moom di nga sañse donc kon yow yem moo si jaay yére dong. ñun lépp la ñu boole dàll yi sax instant bi ouverture yi moo xaw a moo tax ñu wàññi ko quoi moo tax ñu wàññi ko mais dàll moom dañ ciy yëngu bu baax a baax boo xoolee place bi ci ginnaaw dàll la def xanaa booy bi moo ñëwul mais ñun dañ ciy yëngu bu baax mais ouverture ni mu leen moo tax ñu xaw a wàññi dàll tuuti tuuti waaw yemuñ ci njaay yére bi rek ñoo ngi ci dàll yi ñoo ngi ci sago si des fois ñoo ngi ci kii bi daal xam nga période biñ toll nag moo laaj maanaam yëre yi ndànk ndànk ba ci kanam quoi parce que dañuy dugg ci décembre faaw ko. mais gis naa ne fii nekkul que ni ay jiin doo fi nekk ak ay bëri gis nañ fi tenue yoo xamante ni ñii muuru sax mën nañ koo sol parce que ñoom tamit ay jigéen lañ te la ñu bokk kon daal su gis su ma xoolee gis naa ne yemoo ci euh, sama classe gi rek nga xamante ni ñoom nu mu sexee rek da ngay jaay ñi nga xamante ni dañoo bëgg yëre yiw di jaay ñi nga xam ne dañoo bëgg yëre sexe. loolu am na parce que dama am ay clients yoo xam ne ay ébaadu lañ dañuy muuru. ay rob rek laa leen di jaay wala jupe yu gudd te ay rob longue manche la ñuy sol kon saa ñun yemuñ ci jean yi wala comme ay bët yu gàtt jean yi non dañuy jaay ay jupe yu gudd dañuy jaay ay rob yu gudd aussi pour ébaadu yi ébaadu bu fi ñëw daal di nga kontaan moom waaw. am na solo mais bëggoon nañoo xam maam Mor te ku ko bëgg a jot nooy def ba jot ko nga joxe sa numéro téléphone et tout ça. waaw Mame ku ko bëgg a jot rek da ngay contacter ci numéro WhatsApp bi muy 76 280 26 00 nga def ka fasal. di nga jot Mame Mor ci WhatsApp bi quoi bu dee numéro orange bi la bu la neex def 78 493 09 18 kooku boo ci wootee itam di nga jot Mame am nga Instagram. non non man moom xam nga yow Instagram am naa ko waaw. Facebook. Facebook itam aussi am naa ko. léegi ku gis ci Instagram ou Facebook naka lay def. Facebook bi moom boo ko bëggee gis dama rek def Mame Mor waaw Mame Mor Café boo fa duggee rek di gis ay taf yu nice nga dem ci Instagram bi c'est la même chose quoi. daal da ngay def vente en ligne. man damay def vente en ligne lépp lay def waaw. am na solo kon yéen sama mbokku jigéen ñi may seetaan soo leen bëggee lu rafet lu tendance lu am jom ñëw leen fii ci centre commercial bu Mbour. ñëw ci nga xam ne mooy Cap Fashion ñu gën ko xam si maam moor boo leen fi dikkee loo leen soxla te ni boo leen soxla dàll saak lépp di ngeen ko fi am mu habillé leen ci rafet li lañ leen indiloon tey ci seen info 8 TV si émission style ñu leen di jox dig daje ba beneen yoon incha allah.